waajtaay wi incha allah xëy na bu fekkee ne nosewut wala yooyu maa ngi ciy jégg bu baax a baax foo ma itam ne lépp dana mën a mat tey waaye lu ci ma tuddee incha allah boo léegi ñu mat li ko ba dem ci leneen xare Badar nag xam ngeen ne xare la boo xam ne ci xare yi gën a siiw ci xare lislaam yi la bokk ndax jullit ñi dañ caa jóge ñu wet leen mooy xare bi njëkk mën nañ ne ci xare lislaam yi ndax xare am na lu ñuy tuddee ay gazawaat yu ko jiitu maanaam lu ñu tuddee xare ndax ci lis ci lislaam bu ñu waxee gaswatu rek mooy bu yonent bi génnee na ci xare ak donte xeexuñu dañ ko tuddee gaswa su yonent bi génnut nag ak donte xeex nañ dañ ko tuddee sariya loolu moo wute wutale bi nag génn na ba tàyyi waaye xeex amut ci badar nag ci la xeex amee fekk na itam njëkk loolu lépp xam ngeen ne yonente bi nekk na fukki at ak benn ca Makka te Mustafa yu nangu nañ seeni alal duma nañ leen sonal nañ leen metital nañ leen yàq nañ seenu der li ñuy wax embargo def nañ leen ko mooy àgg ci ñoom jullit bu ñëwee jënd kenn du leen jaay te bu yee yi te ñoom bu ñu yoree dara bëgg ko jë bëgg ko jaay kenn du jënd loolu mooy embargo boo xam ne wàllu économie dañ leen leen ko tegoon loolu def nañ leen waaye mosuñoo fay yoon bi moo leen jiitoo ñoom ñëpp moom ci boppam lu ne def nañ ko fekk nañ ko ci wetu kaaba gi muy julli ba sëgg ni ñu ñëw njatt ko ba jël nañ siwo boo xam ne ñu def suuf ba mu fees del fekk ko fi mu toog wala fi muy dox ci mber mbeddi màkk yi ñu këpp ko ko lu ne def nañ ko ko dinaa ci ñëw waaye loolu lépp tontuwut mësuta itam fayu itam rey nañ sax ay nit ci jullit ñi naa yaakaar naa ci waxtaan yi gën a ya weesu ci kii ba mooy soxna ki njëkk a faatu ci islam jigéen la muy ki ñuy wax umay eh, sumaya di yaayu ammar doomi yaasir yaasir moo ci topp ca ñu faatu ñëpp nag gis ngeen faatu nañ te kenn fayul benn jullit fayul booba yàlla da leen dëggalut ñuy fayu bi nga xamee ne ñëw nañ màkk nag yonent bi aleyhi salaatu salaam nekk na xam nga màkk nekk na fukki at ak benn ñu gàddaay ba ñëw ma diina nag laa bëgg a wax ba am fa menn at ci la ko yàlla digal nag ne ko man ngay fay maanaam digal nañ leen fu leen waay dóore ab kur fay man ngeen a fayu mooy udina ci la yàlla wàcce aaya bi wax ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim la qadir masalan foofu lañ leen digale man ngeen a tàmbali fay waaw ku leen dóor walla ku leen tooñ man ngeen a fay bi nga xamee ne yàlla wàcce na ndigal lool nag ci la yonent bi tàmbali nag wax na nag suñ alal yee nga xam ne waa Makka dañ ko jël xam nga ne Makka bari na fa ñoo xam ne ci ñoom jullit ñi waaleykum salaam ba ñu jóge Makka rawati na ñafa yoron ay xewal yu bare bare waaw makka dañ leen wax ne ñaar ay manam ben nga bayyi fi sa alal yépp ñu gungel ba ci buntu dekk ba jox la nga yor mbum bi nga yor rek mom nga yor ak mbuss mo def ndox moy naan te li nga fi am lepp nga bayyi ko ñu dog la bayyi nga mëna gaday lu lool nak do ci sañu dekk dëkk dekk ku mel suhayb ar rumi mom da nongu ak ñeneen yu bare bari dañoo nongu loolu jullit ñepp dañoo nongu moy bayyi fa ci la ci amon lepp ci anam te negara, gàddaay fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam <coughs> loola nag alal yooyu ñu téye la yonente bi woon wax ne ginnaaw ñoom waa Màkka bu ñuy jëndi marchandise faw ñu jaar si Madina doo nga dem Saam Saam mooy Siri tay. kon sañ nañoo dab leen nongu alal yi ñu yor fayoo ko suñu alal yooyu loolu xam nga lu xel nangu la waaye taxul yàlla may leen loolu ba léegi nii taxul ñu dab benn benn xaafi la li ñuy wax maanaam convois yi ñu daa def njëg lañ ko am njëg lañ ko wax njëg yooyu mësuñ cee dab benn yàlla may na leen ko waaye jotuñ cee dab benn loolu lépp dana ñëw ci ndax yàlla bëggut jullit ñi di amee alal ci ci anam gu mel moo tax ne yàlla daganal leen ko jéem nañ ko waaye benn sotuwu ci jiitu badar nag jéem yi ñu jéem te mu jiitu xare badar loolu lañ loolu loolu lañ tuddee xare yi jiitu badar nga xam ne bu ci ne yonte bi di génn ànd ki nit day wax ne ku bëgg a dem na ñëw ñu dem rek nga xam ne du wax kenn kaay nu xeex xeex boobu euh, tudduwuñ ko ànd ak ay téeméer nit wala ñaari téeméer léeg-léeg mu yebal kenn nga xam ne moom du dem buñ demee fekk maanaam maanaam njëgg ma muy commerçant yi daal raw leen ñu dëppaat nag bi euh, yoon wi ñu tuddee maanaam li ñu tuddee xaswatu daatil ushayra moom la ko ñenn ñi tuddee mooy mooy boobu moo mooy moo ci moo ci mujj mooy ba nga xamee ne waa Màkka génn maanaam ña ngay wuti marchandise aw yoon bañ nga xam ne bañ dëppee ca la xare Badar am ba ñuy dem ba ñuy génn ba yaa yonte bi déggee ne ña ngay génn di jóge Màkka jaar fi war a dem saam di wuti marchandise booba yonte bi yeble na ñu génn ngir jéem leen a kar waaye dañ leen raw ba tey waaw moom lay lay wax xaswatu dil oshayra dil oshayra boobu bi nga xamee ne nag ci gàttal kon njëgg ma na Makka ñëw jaar ma dina yaru ci biir dëkk waaye ca pegg ba lay jaar yéen tamit yab leen ngir ñu xool leen far mu raw leen yéen bi nañ leen mu yar bañ dëpp bañ dëppee nak ci la li ñu wax raswatu badrin am moy xare badar mu ñëk wax kon li sabab li sabab xex bi xex bi li ko sabab moy kon ñëg moom mi wax nga xam ne leen rawoon ba nga xamé né raw na leen nit yoonte bi waxtu ne mi ngi doon yónnee di leen wax ne na ngeen nemm ku baxam fu mu toll seenub dikk di gëstu seeni xibaar ngir mu bañ leen rawaat buy dëpp ci loolu bi nga xamee ne xam na ne ñi ngi waaj a dëpp yabal na ki ñuy wax talxatu bnu ubaydillah ak saidu bnu zayd ne leen ngeen dem ci yoon wi ngeen gaaw gëstu seeni mbir xool ba xam seenu dëpp fu mu toll ndax dëpp nañ wala dëpp ñu wala seen mbir toll talxatu bnu ubaydillah ak saïd bnu zeyd moom bi leen yonent bi yónnee ñu war a xool mbirum njëgg moomu mooy commerçant yi jógoon màkk te waroon a wuti marchandise fële ca saam wax nañ ne dem nañ ba fi ñu wax xawraa ab bërëb dem nañ ba foofa ñu am fa ay fan ba Abu Sufyaan romb leen Abu Sufyaan moo jiite woon convoi mooy ñu doon wuti marchandise te rawoon yonent bi maanaam njëkk bi Abu Sufyaan moo leen jiite moo leen moo leen moo jiite woon bi mu yigée bi ñoom gaañ yi nga xam ne ñoom la yonent bi yabaloon bi ñu yigée ne Abu Sufyaan jaar na dañoo daal di gaaw ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk booba njëgg mi dafa am solo fi ne tey li tax yonent bi def ci yitte mooy dafa am solo mooy mboolem mën nañ ne alali makka jëpp wa makka seen alali jëpp mi ngi ci mi ngi ci ndëkk moom mi ngi ci kongaan mi ngi ñoom ndax matoon na junni gilem junni gilem yoo xam ne dañ ko sëf ak ay alal ba mu fees dem xamul lu mu toll ci jamono ji junni gilem nga xam ne fi ne boo ko doon xayma ci dinaar man uh, xaw maanaam gën jaa néew cinquante mille dinaar maanaam ci or lolé wara tor a toll dinar ci wàllu or kenn ma xamul doon ay milliards milliards la tey ji boo ko doon nga bari bari fukki nit doon xam nga di wuti marchandise dañuy wut ay garde ñoo leen di gàddal marchandise bi ñeent fukki nit rek ñoo fa nekkoon moo bi ne léegi nañ leen gëstu seen ñu nangu njëgg mi fayoo ko suñu alal yi nga xam ne moom lañ jëloon fukki at benn ya weesu dañ leen daa tooñ di ko jël seen alal moo tax yërënte bi bi nga xamee ne yëg na ne njëgg maa ngi wàll wëlbatiku dafa daal di wax jullit ñëpp taxaw wax ci ne jullit ñëpp haadihi fii qurayshin fiha amwaaluhum dafa wax ci jàkka ji rek ne waa Quraysh de seen alal ja dëpp na dama bëgg nag ngeen génn ànd ak man su ko defee ñu dem fayoo ko suñu alal yañ daje waaye nag taxul mu sàrt ne génn gi mënta ñàkk dafa ne comme neex rek nga génn moo tax keroog ñi génnoon bariwut ndax xamuñu woon ne xeex moo leen cay fekk moo tax saxaaba yu bare bare bari keroog génnuñu yenente bi rek moo génn ànd ak nat ci ay nit ñoo xam ne ñu ngi toll ci ñetti téeméer ñii ne ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñii ne ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar waaye lu mën a xew ñetti téeméer yi ak fukk ak nangam moom la ci loolu nag yonent bi bi mu génnee moom yàlla xamal na ko xëy na nit ñi mu àndoon xamuñu ko waaye xam na ne lii du lu woyof lu mat junniy giléem Yuusuf alal joo xam ne kenn xam nu mu toll ay milliards et loolu moom kenn du ko jël ci ci ci ci lu set moom moo tax bi mu génnee rek dafa daal di euh, tëral armée bi xeex maanaam maanaam maanaam def plan li ñuy wax plan de guerre dafa tëral li nga xam ne noonu la maanaam da ko def ab armée da ko def rek yoo xam ne ko séddale dem wutal ko ay njiit ak kenn ku ne fa nga war a euh, dale ak fa nga war a yem ak kenn ku ne la nga ca war a def maanaam mu bañ a nekk ci li ñuy wax kenn ku ne def lu neex maanaam kenn da ko wutal ay njiit xaaj ko ay xaaj ci loolu nag wax nañ ne ci biir xare bi manam muhajirun moy mooy gadde won gaday won makka ñew medina ñew ñoo ci gëna ñew lan sari yi ñoo ci gëna bari wax nañ ne manam juróom ñett fuk ak ñaar wala ñett wala juróom ñett fuk ak juróom ben ñoo ci nekkon ci ay muhajirun moy ñi jigoon makka waye ñi ci dess ñepp waaye ansar lañ moy manam téeméer ak juróom ñaar fuk yi ci dess yépp manam manam li ci dess lepp ay ansar lañ juróom benn fukki benn ci aws lañ bokk mooy giir googu genn giir gi geneen giir giir ga ci des mooy xasraj ci fukk téeméer ak juróom-ñaar fukk ñoo ci bokk parce que xam nga madina ñaari yooyu fa nekkoon ñaari giir yooyu ñoom ñëpp nag ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom des ay ñu néew ni boo seetee nag aws ñi ci bokkoon mu matoon nañ juróom benn fukk ak benn ci ñi ci bokkoon mat téeméer ak juróom-ñaar fukk booba nag jullit ñëpp kenn defut sa xel ne génn bi am na solo loolu lañu jàpp ne rek ya ko jiitu woon dañuy génn dem doxantu ñëwaat <clears throat> moo tax indiwu ñoon ay fursaan ay ay ay ay ay ay ay gawar xam nga xare bu njëkk mut la wutal bas xare bu njëkk ku la ëpp ay fas moo la gën a am sansu gañe xam nga bu njëkk xare ko ak léegi nii xaw bu njëkk li ñuy def weesuwut nii nu masal nu toog nii ci jataay ñii yor jees ñii yor jees nuy nuy dóorante <coughs> bu mën a jekk ko jam la ko wenn nga jam ko ku njëkk faatu kooku kooku gañe na kooku faatu noonu lañ ko def ku yor fas nag day tiim nit ñi xam nga yor jeesam tiim nit ñi moom loolu bopp yi bari mën nga ko daggandoo te yow kenn du si ci yow moo tax fas ci jamono yooyu moo daa li gënoon am solo ci guerre yonte bi nag xare bi yóbbaale wutoon ay fas ñaari fas lañ amoon ak ñaari gawar ñu ko war benn fas wi ki ñuy wax Zubayr ibnu ibnul Awaam Zubayr ibnul Awaam ci saxaaba yu mag yi la bokk moo ko waroon weneen fas wi ki ñuy wax al miqdaad ibnul aswadil kanadi moo ko waroon dañu tudd yaakaar naa sëñ miqdaad mi ci gawar yu mag yi la bokkoon saxaaba yu mag yi la bokkoon teewut nag amoon nañ ay giléem yu ñu yoroon mooy lu mat juróom-ñaar fukki giléem amoon nañ ko yoroon nañ juróom-ñaar fukki giléem yoo xam ni dañ doon def dañ ko doon dañ ko doon bokk te kenn rek yor sa giléem ñetti nit léeg-léeg dañuy toggoo genn giléem léeg-léeg ñaar léeg-léeg kenn waru giléem bu yàggee mu wàcc keneen war noonu lañ ko doon def yonente bi alayhi salaatu ko sax beral ak giléem moom yorutoon fas giléem la yoroon bëggoon nañ ko beral giléem waaye waaye nanguwu ko moom ak sayidna aliyu ak ki ñuy wax marsad ibnu abi marsad al xanawi ñoo bokkoon ak giléem ñoom sayidna aliyu ak ak na marsad dañ ko bëggoon a bàyyi giléem gi waaye yéen tamit nangu leen yéen daal ginnaaw danoo ñëpp def nan ko daal mooy nan bokk giléem gi su ma waree tuuti ngeen war wala nu bokk nekk ndox ci alayhi salaatu wasalaam yonte bi saa yu masaa di génn di xeexi xam ngeen ne day bàyyi kenn ca Madina xare bii nag mooy xare Badar ki mu bàyyi woon ci Madina mooy ki ñuy wax ibnu ummi maktum abdullah ibnu ummi maktum ab yàlla dogaloon mu bët yi muuru nga xam ne dawul gis li wax gumba moo ko moo ko daloon moom la fa bàyyi waaye bi mu génnee Madina ba toll di dox ba toll fi ñuy wax raw xaa ca la wax ki ñuy wax abu lubaabata ibnu abdil mundir ne ko dellul Madina nga nga toog fa ndax xam nga abdullah ibn maktum ginaaw mom du gis nga bàyyi ko ci dekk ba wutaat keneen xam nga da ci baax yow na ñeneen nga foon ñeneen ni góor ci loolu nag la daal di seetlee armée bi di ma ko waxoon mu jël ki jiite mboolem armée bépp nga xam ne soldat sépp ki liñ jiite mu def ko muy ki ñax musab ibnu umair al qurashi al abdari musab ibnu umair musab ibnu umair damay benn waxtu bi jël jël jël jël jël mbir mi waaye ku jàmbaare ngi noonu ci lislaam moom ba mu nekkee Makka duggagul ci lislaam doon ku bari xéwal te amub taar xéwalub adduna la amoon ay xéwal kopp kenn xamul lu mu yor ci xaalis ak yooyu waaye bi mu duggee ci lislaam daanaka daa ñàkk lépp xéwal yépp yónte bi nag da ko daa fonkoon bi bi nga xamee ne waa Madina gëm nañ te yónte ba gàddaygut moom la leen yabalam mu leen di jàngal ak leen teqantal ci wàllu islam ba yonte bi laata ñëw fekk na daanaka dëkk bépp nekk jullit xaswatu uxud nag muy xare bi topp ci xare bi wala ci gàttal rek ca la faatu nañ ko faate ku góor na mës mësta dellu gannaaw xam nga ci lislaam buñ de xeex maanaam arrière sa benn tànk loolu dañ ko loolu loolu loolu bàkkaar bu gënu ko rëy maanaam ñi mu woo arrière arrière loolu jullit du def loolu jullit du arrière tànk kanam rek Moussa nag ci xaswat Uhud moo yoroon drapeau bi ci loxoom ndey jorom da ko yoon ñu dagg loxo bi mu dali mu yoraat ko càmmoñ bi ñu dagg ko mu bokk ko ci doq gi ñu dagg dox gi <laughs> góor góor la moom nag la yonte bi def ci Badar mu jiite mbooleem armée bépp nekk lu ñuy wax seefu armée bi drapeau bi nga xam ne bi nga xam ne moom la yoroon nag drapeau bi drapeau bu weex la woon weex tàll moom sagar wax def ak teewul nag kooku dafa jiite nit ñëpp armée bi moom mu Mus'ab ibn Umayr waaye yonent bi daal wutaat ñaari da ko xaajaat yeneen ñaari xaaj ci seen biir beneen xaaj bi mooy mu muhaajiroon yi mooy ñu jóge Makka da def seen seen armée seen bataillon bopp li ñuy wax katiba seen seen bataillon bopp ñooñu seen drapeau bopp leen jox drapeau ba ali ibnu abi moo ko jël seydina ali ibnu abi talib moom la ko yónni bi ngeen kon beneen xaaj bi mu ko xaaj mooy ansaar yi mooy ñi dëkkoon madina ñoom it seen drapo saad ibnu muaz la ko yónni bi tey du ko defee itam mu defar mu defar ko ñaari xaaj mooy fi ñuy wax dafa am may mën ak maysara mooy bu armée bi buñ taxawee ni jàkkaarloog noonu yi day ñu féete ndeyjoor ak ñu féete càmmoñ ñi féete woon ndeyjoor dafa dafa defoon ka jiite mooy ki ñuy wax Zubayr ibnul Awam mi moo waxoon léegi nga xam ne dafa dafa yoroon fas war fas kooku moo leen jiite wetu càmmoñ gi ka leen jiite woon ki ñuy wax Miqdaad ibnu Amr waxoon naa la ñoom ñaar rek ñu yoroon fas ci biir armée bi àndoon ak yonent bi yëpp alayhi salaatu wasalaam bu ko defee itam wàllu nag joxe ndox ak ndox mi mbirum ndox mi ak séddale ndox mi joxe ndox fexe ba nit naan wàllu ndox affaire ndox da ko dénkoon ki wax Qays ibnu moom mën nañ ne sax moo jiite mboolem armée bi yëpp Mus'ab mais daa daa yoroon maanaam drapeau bi nga xam ne moom mooy drapeau armée bi loolu laa bëgg wax maa ngi jégalu foofu Mus'ab daa yoroon drapeau bi nga xam ne mooy drapeau bi nga xam ne moom moom lañ ñëpp bokk te wut na groupe groupe dañu am seen seen drapeau boobu Qays mii nag ma nañ ne moo jiite woon nag armée boobu waaw moo daa jiitu ci lépp leen wammat fuñ mën a jëm. ci loolu nag noonu la tëralee arme bi génn Madina nag dox wuti nag fa mu yaakaar ne fa lay njëgg moom muy waa Màkka ña wuti woon marchandise ci yoon wi jëm Màkka rek wenn yoon wi rek foofu la foofu dox ba àgg fi ñuy wax Rawxa bi mu àggee Rawxa ci la bàyyi yoon wa bàyyi ko ci càmmooñam melni ni ku jàddaat ci bërëb biñu wax annasiya fekk ba wax badar la jëm bërëb biñu wax badar badar ab teen la won waye bërëb ba dañ ko wax badar batay ba ag ci wen xur wiñu ñuy wax raxqaan digante nasiya ak fiñu wax safra noonu fofu la jaar loolu lepp ay yor la rek yo xamni ñafa dëkk ko ñoo xam ba agge nak fiñu wax safra ca la yónni ki ñuy wax says ibnu am omar amru al juhani ak adi ibnu abi zahba al juhani la leen yóbbu yónni ca ne leen dem leen badar bu demee badar ci wet yooyu ngeen luñutu ak gëstu xibaar yi njëgg mi fan la toll abu sufyaan ak ñoom àndal fan lañ toll bi nga xamee ne ci kaw loolu it abu sufyaan it mi ngi ci yoon wi ñëw waaye abu sufyaan da doon boroomum xel te it xam na ne alal ju bari la yor moo tax ay pexe mi ngi ko doon def moom it daroon doon def kum taseel dana la laaj lu ne ci yoon ci biir nag laaj boobu muy laaj ci la yéege ne Sayyidna Muhammad génn na Madina di ko jéem a dab alayhi salaatu bi loolu amee nag ci la nag daal di yokk nag ay pexem ak kaaraangeem ngir kaaraangeem ngir mën a mucc ci Seydina Muhammad ñu bañ a agsi ci moom ci la dal di wut ki ñuy wax dam-dam ibnu amrun al ghafari yónni ko mag ba mu ko yónnee wax ko ne ko boo demee ñàngalal mbir mi fa ñànga yem nga ne leen ñoo ngi ci dansé ndax Muhammad alayhi salaatu wasalaam génn na nar noo dab te ñun ñeent fukk rek lañ te moom bu ànd ak gaa ñëpp fi ne dañ nangu alal ji te alal ji daa bari boobu alal yi makka yëpp mën ne ni mu ngi ci njëkk junni gileem yu suuf ba mu fees alal waaw juróom fukki junni dinaar waaw loolu xam nga kenn xamul toll dam dam ba mu demee moom it xam nga. da ko ñàngal ba mbir ma rëy fa rëy yam ndax ba mu àggee rek dafa daal di yuuxu giléem gi mu yoroon dafa dafa dafa ñaas bakkan bi ba dara ji mu dal di wëlbati nag teg gi mu yoroon yépp mu sànni ko fële xotti mbub mi taxaw nag yuuxu waa Mbàkk génn leen waa jàmm xew ñépp dëkkandoo dëkkandoo mu ne leen gaaw leen su ngeen su ngeen gaaw de seen alal ja du ngeen ndax muhammad génn ay ànd ak sahabam di nara kar abu sufyan ngir nangu xaalis ba ak alal bi gaaw leen génn wax ko nag waxi wu ñàng bi loolu amee <coughs> nit ñëpp nag daal di ànd ceeku naqar ndax xam ngeen bu leen ne muhammad bi muy makka boobu dañ leen a duñu woon ñenn ñoom sax wax nañ ko ne ko yow li tax mënuñu dugg sa diina ji mooy yow ñi gën a suufee ci nit ñi ñoom ñoo ñoo ñoo ci saaba ñun ay àgg nañ boo xam ne waaw loolu fi ñu toll ah ak yax yu ñu bokk mën ñëw di fekk si sàmba sugu sugum gi nga xam ne léegi amuñu dëkkuñu kenn xamul mooy ñoo ñoo ko njëkk ñoo ko njëkk kii moo tax nag loolu kon bu amee lii ñu ne ñoom ña ngi nangu seen alal da leen di métti te xam ne ni amaguñ doole noonu moo tax ñu daal di gaaw nag ne nan waaj lii occasion ngir faagaagal Seydina Muhammad ak ñi am àndal jeexal mbirum lislaam bu nga xam kenn du ko déggati bu ko defee nag dañoo def pexe dañoo wax ne daal dëkk bi moom mënuñu fee bàyyi góor ku fi ne faw nga génn dem ca xeex moom duñ fi bàyyi kenn ku mënta génn tey góor faw nga wut ponkal moo xam ni moo la ci nekkal kenn lañ mag wax ñoom waa mag wax ne duñ fi bàyyi kenn ci dëkk bi koo xam ne daal góor nga ci dëkk bi faw rek nga génn mbaa nga wut ponkal moo xam ne danga koy boole ci armée bi mu nekkal la ci loolu waa Makka yépp génn keroog ña génn dañ leen a forcé ma ne ñi gën a jege yonte bi ci bokk muy banu hashim dañ leen a forcé sayidna abbas ak ñooñu noonu ñoom sax gëmoon nañ sayidna abbas ak ñeneen abbas ibnu abdul muttalib gëmoon na waaye da ko doon nëbb ci jamono yooyu waaye dañ leen a forcé ñoom mbokk yonte bi ñëpp faw ngeen génn yemuñ ci loolu ki ñëw abu lahab moo ca génn te abu lahab booba dafa am benn ay bu ko amel bor mu ne ko léegi yow li nga may faye mooy nga génn ci xare bi dem demal ma loolu la ko faye ko fekk Abu Lahab la ko tax la ko teg génn mooy ki ñoo Aatika Aatika euh, moomu mbokkum yonente bi alayhi salaatu wasalaam bañ a jaawale xam bàjjinam wala déet ci moom moo gént ci fan yi bi lii daata am rek gént gudd day waaw gént maanaam benn waay ñëw taxaw ci benn ci doju safaa muy montagne bu safa aw dañ la wuti mak taxaw ca daal di yooxu bi mu yooxu ko nee na manam mbir mi xar la ji xar manam fu ne aw ferñent dugg fa ci kër yi yaq fa lu bare ba lu kenn mënta taxam ci ci ci ci dekk bi ko bi mu gënte lool daal di koy abbas abbas ba ko koy nettali dana ko bu ko kenn yi ndax li boko buñ ko nettalee dëkk bi ni mu demee nii nga xam ne ñu ngi leen di soow ñoom ñi jege yonente bi di leen wax lu ne day yokk coow par abbas nett li ko beneen waaye kooka nag siiwal ko ca def abu jalin fekk sayidna abbas fi mu toog moom it tàmbali ko xoqatal ne ko yéen aatika nee na fi ak daa gis ñetti fan lim lim gént gi mel ne ci biir gént gi tegtal yi day wane ne ñetti fan ci la loolu jàpp fii ak ñett fan ne ko ñetti fan buñ ko amee abu jalin wax ko loolu sayidna abbas ne ko ñetti fan buñ ko amee te géntam gi dara feeñ ci danañ bindu kayit ne yéen yenn ñi dàq fen ci arab yi far nag bañ ci tegee ñetti fan ci ñetteel fan ba rek lu gudd la waaye dama koy gàttal ci ñetteel fan ba rek ci la waa ji dam-dam moomu ñëw taxaw ci dëkk wax li mu wax abu ji abu lahab nag ba mu ko séenee ci la xam ne bu demee jafe-jafe am lii gént ga maanaam mooy des doj yooyu dugg ci biir kër yi fu ne yàq fa dara maanaam mbir la teewul nag abu jahlin moom mo taxaw tem ci ñepp dem abu lahab li ko musal mooy ko amé don bor la ne ko yaame demal ci lol nak ci la wa mak gep genn yemuñ ci lol mbooleem dëkki arab yi len yi len wër dañ len dañ len fa yónnee ne len genn ñu and ak ñun ci xeex ndax xam nga bu ñëk dëkk yi dañ da dañ da signé ay ay ay pact manam bu ñuy xeex bu ma kenn songee man waa dëkk bi ñun waa Darou Mouhty ci misaal waa Mesere dañuy ñëw ànd ak ñun xeex ak koom suñ songee waa Mesere nu dem dimbali ji leen loolu dañ ko daa defante ci biir dëkk yi waa Makka nag ñi leen waroon dañ am ak ñoom yooyu accord ñuy yónnee fa mën nañ ne waa Quraysh benn ci pa pàcc ci Quraysh yi rek kenn benn famille rek moom moo bokkutoon ci xeex boobu mooy ñi ñuy wax Banu Uday nga xam ne moom kenn ci ñoom génn ci nga dëkk bi ay famille lay doon famille nag benn famille boobu benn ñooñu rek ñoo ci génne biñ génnee nag ñoom waa Quraysh mat nañ junni nit ak ñetti téeméer xam ngeen bu njëkk ni xare yi ni xare yi rëy ni ak nit ñu bari ñi boobu àgguñu faw junni nit boobu armée bi gën a mag moo daa mat junni nit junni nit boobu yombul dajale ko junni nit nag ak ñetti téeméer la waa màkk dajale ci loolu amoon nañ téeméeri fas xam waxoon naa yónte moom ñetti nit lañ te ñaari fas lañ wax té jàpp ñu won dañuy xex ñi ne mom yor nañ téméri fas wa mak yor nañ juroom benn téméri dira dira moy moy moy mbubbi kong yi mbubbi kong bokk na ci li nga xam momit dara dara manam bokk na ci li tax yow nga nga nga ci ab guerre ndax mbubbi kong buñ ci dóoree jaay du dugg te ñi yorul mbubbi kong buñ ci door jaay si du dugg yonte bi manam ñim andal kenn yor ci mbubbi kong ñom sahaba yi kenn yoree ci mbubu ko te ñoom waa Màkka yore nañ juróom benn téeméeri mbubu ko ci loolu la lañ nekkoon ay yor ay gileem nag yu kenn xamu nu toll yoo xam ni dañ ci doon rey bis bu set bi set ñu rey juróom-ñeenti gileem muy nekk xéewalu waa arme bi wala fukki gileem leen nag noonu lañ ko doon toppee ba àgg ba àgg batal ci jiite woon armée waa Makka nag mooy Abu Jahlin ibnu Hisham Amr ibnu Hisham mooy Abu Jahlin yonent bi ko tuddoon Abu Jahlin li sëñ bi wax ne lakinnahu jarrahu nisfu ismihi li radal maanaam xaaju tur yi muy Jahlin ji nee moo ko yóbbu musiba mu dal ci kaw moom Abu Jahlin réer gu metti gu nekkoon foofu ci loolu noonu lañ ko doon toppee bis bu set ñu lay juróom-ñeenti giléem nekk ci noos di eh, yor seeni jigéen ñoo xam ne ñoo leen daa wayal ñuy tëgg ka way fanaan nekk ci rek ay caaxaan ak di naan sàngara loolu lañ nekkoon ci loolu nag bi nga xamee ne dem nañ ba war a déparé Makka dañoo taxaw magi dëkk ba yëpp ne ah am na lu des de mooy ni ñi ñuy wax banu Bakar ak jiir lañ te ñun suñ ginnaaw te noog ñoom dañoo séq ak noonoo maanaam suñu diggante ñoom neexut dañoo toggoo jiit soo dañoo toggoo jiit mooy suñ suñu diggante ñoom neexut toggoo jiit te kenn nangutu féete fett ga mooy dañoo dañoo su suñu diggante ak ñoom neexut te bu ñu yëgee ne noo ngi songi si Seydina Muhammad mën nañ ñoo doxe ginnaaw nun ànd ak naa Muhammad te boo dana nekk diggante ñaari safara mooy waaw moom ñun dañuy fàggagal bu ñuy nekkee ci kanam nekk ñi nekk ci ginnaaw kooku moom suñu affaire de suñu mbir jeex bi ñu waxee loolu loolu jaaxal leen bi mu leen jaaxalee ba nar leen a fommuloo xeex bi iblis mu mag moom yi nga xam ne moom jàmm lay bañ daal di jekkeeki def yor jëmmi ki ñuy wax suraqat ibnu malik ibnu jansamil ji nga xam ne moo moo nekkoon moo jiite woon ñuy wax banu kinaana xam nga waa giir yi kenn ku ne day am sa sa sa maanaam xalifa giir googu dana am mooy sangu waa nangam sayyidu bani Kinaana ki jiite woon Kinaana nag ñu di ko wax Suraaqa ibnu Malik ibnu Jaxsam Mudliji moom la jëmmam jëmmam la Iblis jël ñëw taxaw fi seen kanam waa Makka fi ñu taxaw di discuter loolu la ñëw ne leen ana lakum jaarun min an taatikum kinaana min xalfikum bi shay'in takrahunahu masalan yéen maa leen gàddul ne kinaana maanaam du ñëw seen ci yéen maanaam man daal garanti naa leen ne kinaana du leen dox ginnaaw loolu maa ko def wàllu kinaana bu fekkee mën na fi nar dem leen waaw loolu bu dee giir googu fi nar daal dem leen yéen insha allahu dara du leen dox ginnaaw loolu maa ko def sama mbokk yépp ñu ngi ci ci loolu man la ñuy déglu te loolu insha allahu dara du leen dox ginnaaw yëmul ci loolu moom Suraaqa moom Iblis nga xam daa yor jëmi Suraaqa daa ànd ak ñoom daa ànd ak ñoom bëgg fu foo xamee ne yëg na ne gaañ a ngi seen ginnaaw rek mu fexe na wax na wax daal ba ànd ak ñoom ne leen kenn du leen dox ginnaaw ci diir bi itam yonente bi alayhi salaam it moom mu ngi ci dox xam nga ne. wa makka ba genn ci dekk ba génniinu rëy lu ci la lañ fi joge wane seen doole ne insha allah li ab doxantu lay doon ah sayidna mahamad matagu ko ñom ñetti témer ni ne dañuy sang loolu ke dañu dem gal leen nak mo lo mo tax suñu wax ne bataran dañu genn bataran wari'a an nas wa yasudduna an sabilillah parce que wane wan nit ñi seen bop mo leen taxoon di genn ak ku rëy wane dal niñ toll su ko defee nag yonente bi alei salatu salaam dana wax ne ñoom ba ñuy génn ah, wane seen bopp rek noonu ma ko xam moo leen tax di génn ak bëgg a daane diine suñu borom ji ak njubug suñu borom bi tabaraka wa taala ñu daal di génn ñoom waa Makka wuti nag dégg nga am mooy wenn yoon wi nga xam ne moo jëm Madina rek jaar ci xur wi ñuy wax waadi Asqalaan ak Qadiid ak Juhfa ba àgg fu ñuy wax Juhfa bu ñu àggee Juhfa nag fal leen Abu Sufyaan bindee ab lettre di leen wax ne yéen kat la taxoon ngeen di génn yàlla def na ca xéwal maanaam ñoom waxuñu yàlla sax ñoom jamono yoon ndax gëmaguñu yàlla waaye maanaam xéwal am na ci mooy. mooy fi ne fex naa ba rëcc leen ñoom Muhammad ak gaañ waaye bu Sufyaan daa bari pexe na ba ba rëcc Seydina Muhammad nga xam ne gisuñu gisu Seydina Muhammad gisu ko ak ñam àndal nam ko def itam lu xereñ la ndax Abu Sufyaan daa toppoon yoon wi rek jëddut yoon wu mag wi boole kook nag di laaj ak di luñutu ak euh, maanaam di bàyyi xel lépp ndee ba jégué badar badar bërb bo ñox badar maanaam fa la teen bobu ne ci la tassé ku ñox majd ibn amr mu laj ko waw muhammad ak gañam lo xam ci ñom mu ne ko ah, ñom di wax dëgg xawma ci dara gis na ñaari gawar ñaar ñu wax ay gilem yeesal seen gilem ca tundu wee ngay seen tànq fa ndox nandal seeni gileem daal di jàll Abu Sufyaan daal dem ci tund wa ba mu demee xool neefare gileem ya ne mu mu moxañi ko ko gis ci ay xooxi tàndarma mu xam ne gileem yii Madina lañ jógee ndax Madina fa moo am tàndarma <laughs> bi loolu amee nag ci la gaaw daal di jàdd nag yoonoo bàyyi yoonoo yoonu yoon woo nga xam ne fa la badar ne moom la daal di jaar wëri ci weneen yoon jëm mag ci loolu nag la rawee nga xam ne maanaam mujj na Seydina Muhammad mun jot jotut ci moom loolu kon moo ko musal ci bi mu xamee dem na nag ba xam ne raw na nag ci la bind leetar Abu Jahl ne ko nag yëratul ngeen génn ndax fi ne man rëcc na te maa ngi génn léegi mucc na abu jahlin bi mu jotee bi jangal ko wa wa makka coow momit moom it daal ndax ñen ci wa makka dañ wax ne ah nun kat señ bi ginnaaw dañu jëlun sun alal ñu doon genn ngir lolu te alal ji mucc na nan delu ñibbi bo ñew nañ ba jox fa ci la ci la li xam bi nga xamé wax nañ lolu abu jahlin ne leen lolu du fi amé nun kay señ bi mbolom yi nu andal ak kattan gi nu yore faw nu dem ba jàngal leen bind boo xam ne dootuñu ko fàtte te loolu buñ ko defee dana tax dana tax maanaam arab yépp wegnu bul àndee dem faagagal leen maanaam jeexal leen ñoom jullit ñi boobaa arab yëpp danañu joxaat cër te kenn du xalaat dégg nga am nongu sunu alal wala nga ñu jéem fonto ci leen moo tax loolu moom du xalaat abu jalil boo dafa amoon pexe te dala na dala na maanaam xuppoon ci ay xalaat dala notoon ci ay xalaat mooy ba lu mu wax daanaka dana ci korompe ñëpp ba ñëpp ànd ci ñenn ñi wax jëm fee moom mu dëgër ci lii mu wax fexe ba maanaam ne moom kenn du dëpp bi loolu amee nag banu yi mooy ñu jege gën a jege yonent bi ci bokk ne dañuy dëpp noonu abu jaleen ne leen deret du ngeen dëpp ku ci dëpp rek dañ la faat duñ bàyyi kenn dëpp ci yéen <coughs> ci loolu nag am na ñuy wax banu zahrata moom ak giir lañ ci ñi waroon màkka doon leen dimbali si rek ñoom ne ah nun kat sëñ bi dañ leen doon jàppale waaye nag ginnaaw maanaam maanaam la taxoon ngeen génn muy al seen alal ji nangoon rëcc na nun dootul nu nekkati di xeex ñoom waa banu sarata daal dëpp fekk banu sarata ka jiite mooy ah, al axnas ibnu maa ngi juum al axnas ibnu sureq moom moo njëkk a wax xalaatut nañ dëpp waaye abu jahlin lànk banu sarata nag maanaam ah, ah, ba ba tey moo leen jiite sax nag na si maa ngi jub maa ngi jub ba axna si ibnu Shurayh moom moo leen jiite moo wax ne man ak ñi ma àndal nan dëpp muy banu saara ñu di dëpp nga xam ne kenn ku bokk ci ñoom seen ngir boobu fekkiwut xare ba bañ bañ dëppee ñoom matoon na ñetti téeméer moo tax arme bi mujj nekk junni nit rek maanaam waa Màkka mujj des di junni nit rek waa banu saara te ñoom dañoo matoon ñetti téeméer nit bañ demee nag dëpp nag ci lañ desee junni nit rek banu Haasim ñoom bëgg caa topp Abu Jahl taxaw seen kanam noonu ma ko waxee nee naan dem ah buñ demee faagagal leen rey fa suñuy gileem naan fa sàngara def fa jaloore joo xam ne arab yëpp dañu ko waxtaanee boo léegi kenn du ñu yàpp nañ def loolu ñu daal di cay ànd ci loolu nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom it yëg na xibaar bi yëg na ne abu sufyaan rëcc na ak giróom leen dab ñoom ñu yoroon bi te it yëg na ne waa màkka waaj wu rëy ñëw ngir xeex sa ñoom <coughs> loolu bi mu ko yëg moom Seydina Muhammad ngi toll ci fi ñuy wax bi waadi zafran aw xur la ñuy wax waadi zafran foofu la yége ne Abu Sufyaan rëcc la te waa Màkka ngay ñëw ngir xeex ñoom te yonent moo xam na ne mënta daw xeex fi ne tey bu dëppoon ñoom abu abu jalin maanaam ak ak doyam waar àgg na ci faw mu fekk leen ba mag ba madina dégg nga am faagagal leen ca lam xalaat moom abu jalin moo tax yonent bi gis ne dëpp du xalaat bu dëppee maanaam loolu sax day day day day may da leen di may doole ñoom dañuy wax ne ñoom ba dañoo daw moo tax yonent bi dëpp moom du xalaat ci la nag dajale yi àndoon ak moom yëpp leen bisimilah kaay leen waxtaan kenn ku ne xalaatam <coughs> ci loolu nag ngeen ne xam ngeen ne ci la wote waxtaan wax ne dama bëgg ngeen wax ma seen xalaat asiru alayya ayyuha nnaas wax ne ma seen xalaat fekk booba am na ci yenn saxaaba yi nga xam ne moom xëy na dañuy doog a dugg ci lislaam wala seen pas-pas dëgëragut ñenn ñu ne ah sëñ bi nan nan ñibbi nan ñibbi waaye kat ñee gënal junni nit la ñooy nangam yor téeméeri fas ak de nga moom doole jur jeex nun ñetti téeméer ñu fas ñu dara nan ñibi am ñoo xam xalaat mom dañu njëkk am fekk booba ñi gëna mag ci sahaba yi waxu waxaguñ dara yonte bi ku wax ba nopi day wax ne asiru alay wax leen ñi ci des na ñep wax ci le sayyidna abou bakar juk wax wax ju rafet ko nun dey tay mom jek nañ ci ci dee jekk nañ ci dee fo nu jëmale rek nu jëm amul xalaat yow daal lu la yàlla digal def ko noo ngi sa ginnaaw Seydina Omar jug moom it jaar foofa fa Seydina Abubakar jaar ne ko noonu jekk nan daal ci dee suñu bakkan yi daal dañ ko jaay yàlla inna allaha stara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wax dañoo jaay suñu bakkan suñu bopp dañ ko jaay yàlla mu war na fay ajal kon moo mënu suñu bopp nun kon jekk nañ ci dee pëste boobu lañu wax ñu naar maanaam boo gisee ñooñu rawati saxaaba yépp ñepp xam leen moy positif positif fofu la moy secret bi affaire mbir mi positif ku la ko ëpp moo la gëna jégué yalla way gis ngeen abou sayyidna abou bakkar sayyidna omar ñoo ñepp ñi doon wax ginaaw ba seen ginaaw ki ñoo al miqdad ibnu amr mom jug na wax yoonte bi ne ko ya rasulullah imdi lima araka allah fa nahnu maak wayal ci la yalla yoon nun noo ngi sa ginnaaw te duñ dëpp mukk li banu israila waxoon Moussa Moussa ni tamit lañ ko waxoon lañ ko waxoon ne ko izhab anta wa ko fa qaatila mooy demal yaag sa borom nga xeex ak gaañ ñun tëddunoo xeex ne ko loolu duñ la ko wax mukk ñun dañ la xam ne demal yaag sa borom nu ànd ak yéen di xeex loolu la ñuy wax loolu la miqdaad wax wax ji yéemu yónte bu ñu ko déggee rek daa daal di bigaat yi gis ne borom Daaru Muxti ak ak njàmbar da ko ne xam nga si xam nga du koo xam ne siiw na lool ci saxaaba yi gis nga si borom Daaru tudde na ko <coughs> na ci loolu nag waaye gis nga ñu doon wax ñëpp mu muhaajiroon la mooy ji jigoon Makka la te ñooñu ñoo gën a néew ci armée bi moo tax yonente bi teewul mu waxaat ne asiru alaya ba tey wax leen na kenn ku ne wax xalaat maa ngi déglu seen xalaat ci la nag na ci waa ansaar yi ki ñu wax Saad ibnu Muaz daal di jóg ne ko yonte bi de xanaa yow loola tax di wax mooy noonu waa ansaar yi ansaar yi ki leen jiitoon mooy Saad ibnu Muaz daal ne yonte bi ah xanaa loola tax di wax gaa ñi wax nañ wax ji te ñëpp ci lañ ne nga naa wax leen ba tey xanaa nun nga bëgg a wax noonu waa ansaar yi daal di wax nag moom wax joo xam ne kenn mësu ko dégg dafa wax ne faqat aman naa bik فصدق فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحبر صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله موي داف واخ يونتي بي سيدنا محمد يودي دي لا جم جم ني اب يونتي nga گم ني يالا لا يوني ليغا اندي ليپيت نون لن كو گمي dara lu sikk sàkk ci sa mbir amut sunu baat yi joxoon nañ la ko bu yàgg mooy ban ñëwee jébbalu rek mooy jaayante ban ko defee rek boobu lan la joxoon suñu kàmm lu la neex nag mën nga ko doxal ci noonu tey doxal wéyal wéyal te dox giñ naa ci ki la yónni te lim la yónni lépp di dëgg mooy ne géej gii de boo ko xuusoon nu seen la nga nga nga wuti ko nu xuus ko ànd ak yow foo jëm daal noo ngi ànd ak nun jekk nañ ci dee wax loolu mooy gàttal wax ji ne ko nag koo mën a dajal rek ci noon yi ku la neex ànd xeex la moom noonu daal jekk nañ ci koo ne nan xeex ak moom nu ànd yow nu ànd ak xeex ak ci loolu nag yonente bi nag daal di daal di daal di daal di di kanamam belliwaat mu daal di bégaat nag maanaam ñu gis ci kanam gi mbégte ndax xam na ne ñëpp am nañu moom ginnaaw mboolem ansaar yi wax nañ muhaajiroon yi wax kon loolu mooy ñëpp am nañ ak moom ci la lañ daal daal daal leen bégal na ne leen siiru wa absiru bég leen fa inna allaha taala qad waadani ixda taifayn ixda taifatayni mooy yàlla dig na ma ñaari mbir imma nasru wa imma shahaada benn nu gañe muy xewante ci nun ndax ku faatu ci nun direct àjjana ngay dem maanaam yàlla sax dafa wax ne ku faatu ci jihaat bu jàpp ne kooku daa faatu wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatam bu leen leen jorte ñu faatu déedéet balax yaawul ñi ngi dund aywa fas saase dañ daal dugg àjjana moo tax ku faatu deesu la defal dara nañ na nga faatu rek lañ la daal di yére ya moo tax yonte dem na leen yàlla digg na ma benn nasru mooy ñu gañe leen wala shahada wala nu gañe leen mooy mooy mooy nu su nu am nu nekkaat ci jàmm suñu bakkan des fi wala nu am shahada mooy nu faat dellu ci yàlla ñaar yooyu yëpp xewal la mi ngoog daal daal tàmbale ne leen nag maa ngi mel ne ku janloog seen seen bërëb yi ñuy nërmeelu ñoom ñoom ñoom kii bërëb yi ñuy nërmeelu maa ngi mel ni kuy jàll ku jàll ñoom kenn ku ne fa ngay daanu ci loolu nag la yonte bi wax naa ne bi bi ñuy def lii ndaje moom mi ngi ci waadi Zafran ci la yonte bi nag wax na nan nan wéy nag nu wuti badal nag ci la nag dox ci yoon yooyu ba agsi ci wetu badar ba agsi badar nag ci la tàmbalee campé moy ñu defar xayma yi dal di taxaw fofu tambali nak di gëstu mbirum yéefar yi fuñ toll ak lu seen mbir dem benn bis yonente bi ci wam sax da ne abou bakkar da jekk ne abou bakkar nan def ayo ñu da mu daal di ànd ak abou bakkar yor seeni fas xam naa fas yi ñi fa nekkoon rek la ñuy jël nee na ñuy dox di wër di laaj fekk bu ñuy dox dañuy dañuy masque dañuy sol dañuy kaalawu rek ba nga xam ne kenn du xam kenn du doon xam ne di dox di laaj ba tase genn góorug arab genn góorug arab yonte bi laaj ko ne ko waaw loo xam ci ñaari xare yi ñaari armée yi yi génn te waa ji daje wax ko maanaam xare bi nangam da ko laaj noonu rek loo xam loo xam ci ñaari armée yi génn di waa ji daje waa ji ne ko waaw bala ma laa wax loolu yow danga ma wax yaay kan ba may laaj li yonte bi ne ko boo ma waxee ma wax la mu ne ko ñaari xare yi de li ci ñaari armée yi de li ma ci xam mooy ni muhammad ak i saxaabam sallallahu alayhi wa sallam génn na bisu bi sàngam te kama wax su fekkee ne wax na dëgg tey jii war na ko fekk ci bërëb sàngam te bërëb boobu fa yonte bi nekk ne ko wa makka itam deg na ne deg gen nañ beurep bi sangam te kam wax su fekke ne wax na deug tay ji dana ko dana leen fek beurep sangam yonte bi gis ne ginnaaw wax fam wax ne wa fala wa medina joge nek werna na moy mooy yonte bi ak ak gars fañ ne fam wax ne fa lañ leen ci la xam ne makka itam lim ci wax wer na yonte bi daal di dàq wëlbatik laabam rek nara dem mu ne ko waaw det wax ma yaay kan mu ne ko nahnu waaw ah, wax mu fu ngeen jógee mu ne ko ndax nu min maa noo ngi jóge ci ndox góor gi nekk fa naa ndox ndoxum Irak wala ndox <laughs> fekk yonent bi dem na bu yàgg bàyyi ko alayhi <laughs> yi booba lu waaj lu xam dana ko ne bu ne ko woon maay mu xam bu bu buñ xëy suba lépp si waaw moo tax wax ko dal ci loolu nag lañu woy di gëstu xibaaru waa Makka bis ca ngoon googe la yonent bi yabal ay nit ne leen ngeen gëstu mbirum xibaar yi waa waa waa Makka lu seen mbir demee ñett booba la la yónni ci muhaajiroon yi mooy Ali ibnu Abi Talib ak ak Zubayr ibnu Awaam ak Saad ibnu Abi Waqaas sunu sang yooyu la yonent bi yónni boole leen ak ay ay yenn saxaaba ay groupe ñu dem ba àgg ci ndox ndoxum Badar mooy teen boobu ndoxum Badar moomu ñu gis fa ñaari ñaari xale yoo xam ne ci waa Màkka lañ bokk ñëw fa di tànk ci ndox ngir yóbbul waa Màkka ngir ndox ndox mi soxla ndox mi soxla naa Ali ak Seydina Zubair ak Saad ibn Abi Waqas Seydina Saad ibn wax Waqas ñoom ñu gaaw jàpp ñaari xale yi biñ jàppee ñaari xale yi biñ jàppee ñaari xale yooyu di leen enquête biñ leen di enquête ñu leen nun ay xale lañ yoo xam ni waa Màkka moo ñu ñoo ñu yónni ñoo ñu yónni ngir ñu tànqal leen ndox armée ba jógee makk ñoo ñu yónni ngir ñu tànqal leen ndox Seydina Ali ñoom bi gone yi waxee loolu gëmuñu ko ñu duuma leen duuma duuma tàngal seen yaram moom tàng jël ne leen yéen xam naa ne Abu Sufyaan mu yore njëgg ma moo leen yónni di leen tappaloo ndax wax leen fu mu ne ñu mujj xale yi biñ sonnee ba sonne leen nun daal Abu Sufyaan la ñu yónni ñu jàpp xale yi indi ci yonte bi alayhi salaam fekk boobu mi ngi julli yonte bi laaj leen ba ñu waxee ba mu ne leen yéen daal lañ leen njëkkoon lam leen lañ leen gone yi njëkkoon wax mooy li wér sonal ngeen leen dañ leen a wax dëgg ngeen duma leen ñu ñu ñu fen leen <laughs> ci la wax xale yi nag leen waaw tàmbali waxtaan ak xale yi ne leen wax leen ma mbirum Quraysh anañu xale yi ne leen boo weesoo tund tund wii ngay seen daal boo weesoo ña nga ko yéen itam xam ne kon jege na mu ne leen ñaata lañ yonente bi wax leen wax xale ñaari xale yi ne leen ñaata lañ ñoom waa Quraysh ak lan lañ yor ci ay ngànnaay xale yi nag xamuñu ko yoonte bi ne leen waaw ñaata la ñu rey bis bu ne ci ay giléem ñu ne ko léeg-léeg nu rey juróom-ñeenti giléem léeg nu rey fukki giléem yonent bi daal leen kon dey ñi ngi toll ci juróom-ñeenti téeméeri nit wala junni duñu waa duñu wees foofu ndax giléem gu ne téeméeri nit a koy lekk yonent bi aleyhi salaatu wa gis nga rek moom daa mën a jiite mu mu wax xale yi ne leen waaw magi magi waa yi kilifa yi Makka yi kana kana ca nekk ci ci ci bi xale yi ne ko Utba ak Shayba ñaari doomi Rabi'a yi ñu ngi ci ngi ci kilifa yi Makka Abul Buxturi ibnu Hisham mi ngi ci Hakim ibnu Hizam mi ngi ci Nawfal ibnu Xuwaylid mi ngi ci Alxaaris ibnu Amir mi ngi ci ak Tuayma ibnu Uday ak Nadr ibnu Xaaris ak Zama ibnul Aswad di abu jahlin ibnu hisham umayya ibnu xalaf te ñëpp ak ñeneen nit wax a wax ba àggal biñ àggale rek yonente bi daal ne daal di daal di daal di daal di dëgmal julli ñi ne leen yéen day xam leen ne waa Màkka gépp gën nañ tey ñi gën a am solo ci Màkka ñi ngi ci armée bi ci loolu nag la lañ tàmbale nag waajtaay nag xam ne tey xeex moom dana métti ndax kilifa yi Màkka yëpp gën génn ñëpp a ñi ëpp solo ci wamak makka mooy mooy ñi ñu tudd ci biir loolu nag xam ngeen ne bañ jógee maanaam ca juróom ñaareelu fan yi koor gi lañ jógewoon madina te ñi ngi ci fukki fan ak juróom benn ci koor te ñi ngi woor bis bu set xamu loolu julli ñi dañuy sol ñu tam yëg coono am ñoo xam ni mbir mi nag metti ñoom wax dëgg yàlla ndax ci àll bi dañu naan xëy suba ay xayma tëdd ci suuf te nar a xeexi te waajaluñ ko woon loolu metti ci ñoom ci loolu nag la yàlla ngir fan leen yàlla ku baax la ci jullit ñi ci la daal di wàcc ab taw ci guddi googu guddi gi nga xam ne ci bu ñu xëyee suba ci la ñuy xeex mooy fukk guddi fukk ak juróom-ñaar gi ci la wàcc ab taw taw boo xam ni wetuk yéefar dafa bari lool ba wal def maanaam li ñuy wax maanaam wal yàq seen bagage yëpp daane xayma yi ca wetu yéefar yi julli ñi nekk mu def ko aw wis wet fi julli ñi ne mu def fa aw wis rek wis boo xam ni daa indiwaat ngelaw lu féex julli ñi waat <laughs> ba pare ci la leen yàlla laabale ni ko alxuraan waxe danañ daa ñëw léegi yémul ci loolu ci la seytaan ci la leen dàqale seytaane ci loolu it ci la dëgëral suuf si ba xam nga xam bu leen fàtt ne Makka ab ab kii la saxaraa la mooy li ñuy wax désert la mooy désert boo ci tegee sa tànk sa tànk day dugg ci suuf loolu boo ci dox maanaam fukki jéego fukki fukki maanaam mënoo ci dox kilomètre da ngay sonn fi jullit fi jullit ñi ne nag bi taw bi wàccee dafa daal dëgëral suuf si nga xam ne booy dox day nooy comme perong ni perong xam nga ci nga gën a mën a dox yéemut ci loolu nga xam ne suuf si da ko da ko da ko da ko da ko dëgëral comme da leen ko defal comme tëli daanaka rek aywa julli ji naat nooyuwaat nag amaan nag da amaan nag da nga am maanaam gën a am amaan sawarte daal sawarte bu mat sëkk ak pësteef seen pësteef yokkaat ci loolu gis ngeen yàlla tàmbali naa dugg ci mbir mi ndax ginnaaw yéefar yi <laughs> taw bi dama ñëw yàq seen bagage yëpp maanaam mu taa ci ñoom ñi nak mu def bis bisal bo xam ne daa ci ñom ci lool nak ci la yonente bi alei salatu it di def ay pexé ci bu ñi xex ah di teural mbirum xex bu hmm, waxtu wi di àggaguñ ci xeex bi waaye waxtu wi mel na mi ngi dem ci lool nak ci la yonente bi wax ne nañ gën a dox ba jige ba ndox ma ndoxum Badar bi nga xamee dem nañ ba jege ndox mi ci la wax ne nañ wàcc fii ndax ne jege nañ ndox mi di ci man di naan ki ñu wax xobaab ibnul mundir daal di jëkk gi jóg nekkoon ku xam mbirum xeex ne ko yow yónnante bi de waaw fii nu wàcc yàlla la fi wàcc loo am sa xalaatu bopp moom moom rek ci ngay dox yonente bi ne ko ci sama xalaatu bopp ci laa ko def xaba xubaab ibnu mundir ne ko nag ginnaaw sa xalaatu bopp la man am naa lu ma ci xalaat lu mën a bëgg a wax mooy damaa gis ni fii nu wàcc nii bu woon ba gën a weesu ndox mi ndax xam ne ndox mi day nekk suñu ginnaaw la ca des mooy pàqi ndox ya ca ya des ñu feex ba ñiisal ko ndax xam ne noonu rek nooy am ndox yéefar yi duñ am ndox nuy naan te ñoom duñ naan dama yaakaar loolu moo gën ci loolu yonte bi ne ko li nga wax dong nag mooy xalaat loolu ànd naa ci daal ne nan ci la ànd ak ñoom ci la ànd ak moom ci la ànd ak ñoom ba gën a wees ndox mi ca digg ndox ma ñu gas ay ay pax ci guddi googu ci lañ ci lañ bas gas ay ay pax ndox man ma ma ma demoon paqi pàcc ndox yi ya demoon ci yéefar yi ya, dil siwaat ci la ci des ngiis nga xam nox mepp mi ngi ci fi yoonte bi ne alayhi salaam ak sahaba ci lol nak ci la itam sa'd ibn muas mo jité won ansar yi waxon naa ko daal di ñëw ci yoonte bi ne ko man day dama am xalaat bu am bëgg la ko wax moy do bëgg ñu defalal la mbaar fi ci sun ginaaw nga nekk ci yaak ñi ñi ñi la gëna jégué ci gaañ ñu wutal la itam ñu lay garde su fekkee ne gañe nan lu nga mën a gaaw daw rek dem mag dem Madina ndax ña fa ne ñoo ñoom ñoo bokk benn posture bi boo demee ñu jàppale waat bu fekkee ne itam noo gañee itam noo xam ne loolu mooy mooy mooy mooy lu mu doon sàkku yonte bi ne ko loolu xalaat bu rafet la <clears throat> daal di koy ñaanal ñu daal di fi kaw tund bi ci aw tund ñu defal ko fa mbaar mu baax ak xayma yonte bi nekk fa yonte bi moom def leneen bu ko nexé bu mbir mi tangé ba tang rek mu dugg ci xeex bi waaye kèn sahabi bëgg ñoon mu xeex dañ ko bëggon def mbar ci ginaaw teew nag mo la jité lepp lepp moko jité ci lool nak nga xane moy mooy guddi gi mucc guddi gi mujj ci la li am ni limi wax ni nga xane ci suba sa ci lañ tàmbalee xeex kon lee ma wax li ma wax guddi ga ma doon njëkk wax kon moy guddi ga ko jitu guddi guddi guddi guddi fukk juróomeel juróom lii mooy fu guddi fukkee la juróom-ñaari bokk la bëgg a juróom-benneel moo nekkoon ne juróom-ñaari moo nekk nii nga xam ne buñ xëyee ci lañuy ñuy xeex ci loolu nag ci la yonente bi tàmbali di waajal nag armée bi ci guddi googu la la jekk ki fi yéefar yi nekk ni ci maanaam fi ñu war a xeexee mu ànd ak saxaaba yi di leen wan leen fii fi la diw di tëdd fii lañ koy faat fii itam fi la diw di tëdd fii lañ koy faat diw it fii day faatoo wan leen ko benn benn doog a dend ca xaymaam waaye teewul ci guddi gi ñu abu Seydina Abubakar gis na ko muy muy ñaan suñ boroom ah bu gaañee faatoo de moom moom desul la jaamooti ci kaw mbir mi daal mi ngi nii ñi jullit ñëpp nga nii tey ci gis nga yoruñu dara ci ngànnaay tega gaa ñaa ngi ni <laughs> yor seen i ñame dimb leen nanga ñaan ñaan ba kaala gi rot seydna abubakar fekk ko fa ne ko yow yàlla du du du la gàcceel mukk maanaam waaye falal sa bopp waaye falal sa bopp nga xam ne li coonam ko nooy gañe moom positif la àndal seydna abubakar moom borom positif la waxoon moom métti bi yonte bi nekk ci ñaan yàlla bëgg defal ko dimbal loolu la ko yërëme yow ko dal sëñ bi toppalal sa bopp insha allahu yow yonte bi yàlla waaw coono bi jëru ko ci ci loolu nag yàlla daa daa def yàlla daa def biñ tëddee ci guddi gi rek julli ñi dañoo tëdd rek tàmbalee nelaw nga mel jàpp leen ñu yàlla wax na ko ci alxuraan is yuxsikum nuaasa amanatan minhu wa yunazila alaykum li yutahirakum bihi wa yudhiba ankum rijsa shaytaan wa li yarbita ala qulubikum wa la bihi laqdam masala yàlla dafa ne taw bi yëpp ak li xew lépp maa ko def maa leen defal ngëmmeen li ngeen ngëmmeentu ngir mën a noppalu ngir bu ngeen xëyee mën a nekk ci xeex maa leen wàcce taw bi itam ngir mu laabal leen dàq seytaane boolewaat seeni xol joxal leen ak cawarte kon lépp yàlla ni maa ko def yàlla moo def lépp guddi gog nak mo don guddi fuk ak juróom ñaar ci wéru koor ci atum ñaarel mi moy bañ démé madina ba ci ñaarel atma ci gàddaay gi man dama jéxalé jeexale wala ma jéxal ci xamna mom faaw ñu rew ko ñaari fan yakana wal da waxtu yi daanaka jeexante li des bëritu ba batay wa makka itam ci bo waccay ci lañ né wa makka ñoomi ñang ci gënal wet ñoom it nekk seen waajtaay am na ku ñuy wax kenn ci ñoom waaw maanaam ci ñenn ci waa Makka dañoo ñëw wut si ndox mi ndax booba mar mar mee leen xaw a xaw xaw a xaw a sonal ñu ñëw wut si ndox ngir naan waaye yéen tamit ba mu gisee jullit ñi bëgg leen a aaye da leen wax ne bàyyi leen leen ñu naan ci guddi gi dañ leen a bàyyi ci lool nag waaye seetlu nañ ne mbooleem ñi naan si woon ca guddi googee ñëpp ko faatu ba mu des kenn ku ñu Hakim ibn Hizam moo ci moom yàlla dox yàlla dogal mu mujj tuub ginnaaw boobu ba dugg ci lislaam ba lislaamam rafet lool waye da ko daa wax da bu masaa di ginte wax ne la walladi najjaani bi min yawmi badr ma ngi ci ki nga xam ne moom musaloon bis badr la nga ne ga ñëpp faatu mu dess mom bokk na ci naan ci waye ñi naan ci won karam ci ci guddi gi ñëpp ci suba ci doon nak bi nga ne Quraysh ña am yaakar japp ne suba mom insha allah ab doxant rek lay doon li ben jafé jafé dal duñ ko am buñ leen waat aw Abu Jahl saa daa wax ne nan fi def ñetti fan rey li def ci gileem yi naan sàngara si bu ko dee way fi maanaam def fi jaloore joo xam ne ñëpp dañ ko dégg buñ leen faatee ba noppi buñ nan fi def ñetti fan loolu la Abu Jahl doon ci loolu nag ci lañ ci guddi gi itam yabal nañ ki ñu wax um-, Umayr ibn Wahb bin Jamhi mana Abu Jahl yabal nako ngir mu xol julit ñi ñaata lañu wara toll ñaata nit lañu wara toll bi nga xamé né war na fasam ñew wër fi julit ñi né suñu campé delu wat ci leneen wax né ah ñé dé gën ja bari ñet téeméer nit duñ ko wessu ñet téeméer nit buñ ko dé ëppit du ëpp wala wala duñ ko ëpp lu bari dal waaye nag daan leen ñetti téeméer leen xanaa ñemoo ñoo ñëw di xeex ak noonu bàyyi leen ma xooliwaat te seen ginnaaw ndax desut ñeneen ñi ñuñ làq daal di war fasam dox lu sori ca ginnaaw tesewut ak kenn ñëwaat nag moom Umayr ibnu Wahb moomu wax yéefar yi ne leen gisuma kenn de nekkul seen ginnaaw ñoom ñetti téeméer nit kot ñoo ñoo nar waaye mbir mi nan nan ko seetaan ñetti téeméeri nit buñ jekkee ne dañuy xeex ak ñun ñu jekk nañ ci dee maa dee leen di gënal lu may lool te wóor ma ne buy rey ñoom kenn danga rey ci ñun maanaam bala ngaa rey kenn danga la rey moom xaw nu rey ci ñun lu toll ne lu toll ne ñetti téeméer bala nañu leen a fàggal ñëpp kenn ku na rey ci ñun kenn te loola ñetti téeméeri nit buñ ko rey ci ñun loolu dana dana dana doon lu bëy te it nga ñaay lay tudd ci ñoom maanaam junni nit ñetti téeméer ñu rey ci yéen ñetti téeméer kooku moom moom musiba lay doon arab yëpp dañuy wax ne yéen dañu leen a ëpp moo tax ngeen gañe leen ne léegi nan def xalaat ci jéem a ko <laughs> ndax daan lii bu ñu jógee gàcce gàcce dana la ci fekk Umayr ibn Wahb moo bi mu ñëwee la wax loolu wax ko mbooleem kilifay Quraysh yëpp <coughs> waaye <coughs> ci loolu xam ngeen ne abu jahlin moom waxtu wu ne rek am ku ko ku ku ku moom ci xalaat waaye mu taxawati mu abu jahlin ci ne loolu du fi amee loolu du wax loolu du xalaat bu kenn déglu li li waa ji wax waaw maanaam Umayr ibnu Wahab moom yëmul ci loolu da ci waxtaan ak kilifa bi Makka bi bokk na ñam ci waxtaan ku moom Hakim ibnu Hizam waaw Hakim ibnu Hizam bi nga xamne deg na lol da ñew ci utba ibnu rabi'a ci kilife makki la wax ne ko ya abal walid yow de ya gëna mak ci gañ ya ci ëpp ayat ci ñi fi tajé tayit ci kilife yi nga bok da bëgg nak nga xalaatat ci mbir mi li waji wax umayr mi lim wax da bëgg nga xalaatat ci ndax dal fay suba ñu dajé ak ñom ñu gañé nu kooku moom gàcce lay doon goo xam ne ilaa mi din dootu ci loolu Utba dal di wax Xakim ibnu Xisaam ne ko ana ibnul Xandaliya ibnul Xandaliya mooy Abu Jahlin Xandal mooy xeetal ibnul Xandaliya nag lañ ko daan mooy yaay ma tudd noonu ibnul Xandaliya loolu loolu ko indil wextaan woowu la ci li ma ragal moom man sama xalaat bopp maanaam ne ne ko da ngay dem waxtaan ci aboo Jahlin ndax xam nga Abu Jahlin moom kenn mënu fi wax lu sax te du ne te cee ànd mooy yow dama la waxtaan ak moom ba Utba ah, ah, ba daal di ñëw taxaw ci digg nit ñi teewut manam wax na hakim xakim waaye dafa ñu wax taxaw ci digri ñi leen yéen waa quraish ñii de seeni mbokk lañ barki dem lañ fa génne ngeen topp si leen nar leen na faat ni su ngeen leen rayee de dootu ñu leen bëgg a tek bëtt te seeni mbokk la xoolaat leen loolu bala ngeen dugg ci xéer lepp ci guddigi la am li muy wax ni bi lolou amé nag ci gattal rek hakim ibnu hizam mi fekk na Utba waxoon na ko demal ci abu jahlin nga waxtan ak mom hakim dem ci abu jahlin fekk abu jahlin bo ma ngay defar mbubbum mang, comme mbubbum ko mu wara sol mi ngi koy defar di wajal mu ñu wax ko ne ko Utba de yabal la ma ci yow wax na nga wana wax ko lañ waxtana ci ci mbirum depp mi bañ baye xex bi ba agal. mu daal wax baat bu ñaaw Utba wax ko baat bu ñaaw bo xani kenn ko nekk moom daal sëñ bi am am ak ragal am am ragal dong la daal boo xam ne daa bëgg a dëpp maanaam ragal dong ko jàpp waaye xam nga dëpp moom xala moom xalaatuñ ko rek duñ dëpp dëpp moom xalaatuñ ko kii dafa ragal rek bi cooli nare am Abu Jahlin daa def fi pexe mooy ki ñu wax Amr ibnul Hadrami nga xam ne loolu beneen mbir mu weesu la mooy xare ya jiitu woon nga xam ne xeex amu ci da ci am boo xam ne am na kuñ ca rey koo xam ne ab yéefar la fekk njëkk loolu yéefar yi dañuy jóge màkk ki jiitu ki ñuy karz moom mu ñëw waa Madina song leen nangu ay ay ay seeni bagaas maanaam sonal ay gone ki xale ki jigéen ci loolu nag yonente yonente bi yabal ay gaay yoon dab mel mel na njëkk far ñu rey ca kenn ci gàttal bi loolu amee nag kañ reyoon nag mbokkam nag la bu jëlin seeti ñew mu taxaw ci digg nit ñi daal di daal di daal di waat ni waaw sama mbokk nangam ak nangam lu tee ngeen ngeen fayul ma wax a wax wax a yërëm tëlu yéefar yépp àndaat ci ne léegi nan bàyyi dëpp bi dëpp bu kenn dëpp nan nan xeex loolu moo moo tax xeex bi am bi ñu xëyee suba teel nag dama ne mi ngi dal ay dox bi ñu xëyee suba teel nag ci la nag maanaam ñaari arme yi taxaw ci suba bi julit ñi xëy suba teel woor ci bisub koor fukki fan juróom-ñaar ci weeru koor yéefar yi taxaw fa de wóor ñu def ñu dara naan seen sàngara lekk seen jullit ñi taxaw di ñetti téeméer kese ci di junni nit ci seen kanam jullit ñi yoruñu benn ngànnaay daanaka mu ñu wax ay jees yoo xam ne yenn yi xomaag nañ yenn yi toog ko am solo yéefar yi yor lu kenn xamul ci ay ngànnaay biñ taxawee nag jàkkarloo ci la yonte bi wax ñaanaat tàllal loxo yi allahumma hadihi quraish qad aqbalat bi xuyalaiha wa faxriha tuxaaddika wa tukadibu rasulak allahumma fa nasraka alladi waadtani min gadaati yàlla sunu borom Quraysh ngi ni ak and ak fuukarew ak rëy tax na gen ngir wedd sa yonante bi alayhi salatu wasalaam lang ma digon nak ci ne dang ma jappale tay la koy mang koy sakku tay nga indil ma ko dal ndax daal mbir moom ah, wala no ma sa dig dal ci ne dang dinaa gagne na tew tay kon di wax sunu borom <coughs> ci loolu ki ñëw Utbatu bnu Rabia daa daal mu mu war mbaam mu xonq yonte bi daal di wax ne ut maanaam mbaam meri ka ko war moo gën ci gaañee ñëpp fekk ut ba xam moo doon wax waxi dëpp ji ci loolu nag la yonte bi tàmbali di jubbanti manam manam armée bi diko jubanti kenn ku ne mu taxaw loolu fi bërëb ndax dañ doon sappé xam nga bu ñu xeex dañuy sapp taxaw bi mi jubanti armée bi ba ag ci ki ñuy wax sawaab sawaadu ibnu ab sahaba la mom yoonte bi da wax ñëpp nañ taxaw rancé ni moom mu genn sapp ci yoonte bi socc bi mu yoron mu dóor ko ko ci biram ne ko arrière an mana dox taxawal ci sapp ci bay bay li nga def sawab Seydina Sawa Sawaat ne ko ah yonte bi jàngale maanaam du la waaye def <coughs> sañ fayu maanaam fayu yaa ko jàngale. mu ne ko waaw li ma def bu la mettee mën naa la may nga fayu mu ne ko bismillah naa damay fayu yonte bi ne ko bismillah fayu wan ko kanamam alayhi salaatu wasalaam mu ne ko déet ñu may dóor booba ma dara maanaam booba daa surut mbubb moo xam ne da ko dóor maanaam socc ci biiram mu ne yonte bi da ngay dindi sa mbubb ma ma ma fay bu yonte mu ree mbubbam mu daal di mu daal di rek jege taq ci ci ci biiru bi yonte bi alayhi salaam di ko di ko fóon fóon ko ba doyal daal di siggi yonte waaw li nga def loolu ci jublu mu ne ko dama sikkul ne tey jii laay laay faatu te dama bu may dem bu may faatu sama yaram mujj laalanteeg sa yaram loolu la ko tamo def yaa ne fay tax ko woon juk ci lool nak la yonte bi jubanti sapp yépp taxawal kenn ku ne fa nga wara taxaw daal leen wax ne leen luñ bari bari ci seen karam ak di daw wursi leen yeen na ngeen yem rek ci fett na fett ka di fett rek dégg nga te seeni fet neen ko def nank bu leen dóor fet yi ngeen yor yépp leen def nank fet yi ngeen yor seeni bu ko dindi li feeg waxuma leen ay li wuñ ba ba róofaloog yéen bu leen bu leen roppi seeni jaasi ba yonte waxee loolu defaraat sàppe yi ci la dem ca mbaar mañ ko defal abu bakrin sayidna abu bakar moom it nekk faak moom ca biir mbaar ma saad ibnu muaas moo jiite woon ñu doon ñu doon ah, doon sàmm kaaraange yonente bi alayhi xam ngeen yonente bi dañ sàmm kaaraangeem bi nga xam ne yàlla wàcc na nag wa wax ko ne ko wallahu yaasimuka min annaas ca la jëkkee génne boppam ci xayma bi mu nekkoon ne leen sa gaañe dem leen yàlla sàmm na ma nee na ma dara du la du la def dara musa da nga mucc wala yaxsimuka mina naas yàlla yow da nga mucc te fekk xam nga yonte bi ay Aysa daana wax ne maanaam guddi sax bu ñu mësaa nekk ma dina biir biir guddi guddi ci moom yonte bi dara maanaam ñëpp tiit ndax boobu waa Makka dañ leen waxoon ne faw dañ leen fekk ma Madina maanaam faagagal na taxoon na guddi gi kenn du sa xel du dal moo tax yonte bi fu masa ne dañ ko wutal ñu ko jàpp bi aay ba wàccee nag ne ko yàlla musal na la ci gaa ci nit ñi kenn du la mën a lor ci la wax ci la yërndu dégg nga am ñi ko doon garde ni leen dem leen euh, seen liggéey yéen mag na am na ci kenn ñi ko doon garde dama xamul dama xamul yow Kaab ibnu Rabia yaakaar naa lañ fi wax moom yonte bi da ko yeewi ay ay ay yoon mu lànk nangu ta waaw yénte mujj jël ne ko demal nga lijjanti say soxla te te man jëntuma gàtt ci la ko ne nag man nekk ak yow moom dama dàq lépp ne ko nag maa ngi lay ñaan ci la yonte bi dana ko sal nii ñaan ma xadis bu wér mu ngi ci sixa yëpp yu bari boobu yonte bi ne ko ñaan ma sal nii mu ne ko maa ngi lay asaluka murafaqataka fil janna dama lay ñaan ëllëg maa yow lu bokk mu ne ca ajana mu ne ko nag loolu li ma ci dimbale yonte bi ne ko li ma ci dimbale mooy say sujjoot nay bari del julli del julli lu bari waaw ay nii bi kafarate sujjoot ci loolu nag li yonte bi kon delluwaat ca fañ ko defaloon mbaar ma ah nekk fa ak Bakar ak gaañoo ñu di ñaan rek ñaan yoo xam ni yu yu yu yu yu tar la noonu ma ko xam teewut tam yéefar yi itam dañ doon ñaan abu jahlin bi nga xamee ne mbir mi taxaw na ba xeex bi taxaw daa daal di yëkkati loxo moom it wax ne waaw su borom ku ma noog noog koo xam ne dogu mbokk a jóg faat ko tey koo xam ne itam indil nañ luñ ñëw ci mbokkam maanaam tas mbokk gi indi fa loo xam ne kenn mësu koo xam maa ngi lay ñaan nga faat ko tey ku la ci gën a laal tey jii ci ci noog ñoom noog jullit ñi Abu Jahl na nga ko na nga ko dimbali te faat ñi ci des <laughs> ci la yàlla wàcce aay wax ne in tastaftixu faqad jaakumul fatxu li nga na yow yaa doon ku <laughs> ci dogg mbokk def lu bon na la yàlla faat yéen yéen a faat yéen yéefar in tastaftixu faqad jaakumul fatxu wa in tantahu fa huwa xayrun lakum wa in taudu naaw walan tuxni ankum fiatukum shay'an walaw kathurat aywa mooy mbooloo mu bari mii ngeen yaakaar ne mën na leen a musal du tax ngeen mucc du leen jariñ li nga doon ñaan it ak seen mooy yàlla def na ki gën ki yàlla gën a bëgg tànn na ko jàppale ko ci loolu xam ngeen ne maanaam ci la nag arab xeex bi tàmbali nag mooy woon yem foofu bii di ñëw lu àggale ko bu sobee la yàlla yàlla defal taw feex ndax mel na ne dañ ko topp si waaye waxtu dawul agsi bi wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad ibni abd ngay mën di jot yu am solo yi ci HDP religion da ngay ñu wax ci bi